moom benn groupe la yor Moussa tam xam dafa bëri ay bagage mais benn groupe la yor yónni ay anticorps di saaga foofu lay toogee di daggal Moussa Lim day daggalaate nag mais tonton Waly moo nga xam ne dafa capable moom tamit ah, a mais tonton Waly du ay caaxaan non nañ bàyyi mu sedd pour le moment for the moment mais mais tonton Waly c'est pas un enfant de cœur tonton Waly <laughs> donc non j'en fait le donc je voudrais vraiment officiellement féliciter le d'avoir respecté le protocole.

mais regarde ça xoolal léegi Basi léegi mi ngi am mi ngi dox avec assurance naan waaw mi ngi ñëw léegi mu sell maa ngi ne. takk noir fi même euh, wala progressiste progressiste. waaw donc progressiste oui bi man bii rek moo ma ma rek quel spectacle quel quel quelle belle image. non dafa dafa nice mais bii vraiment sa euh, xastakat yi oh. reconnaître leen que Basi c'est bien habillé et puis xool lax yi a yaa ngi ñëw quand même parce aussi ah bas tamit est-ce que du régime alimentaire bu xawa a. non non fonds politique yi yow tam nak ah, xam nga kenn xam nga fonds politique kenn supprimer wu ko. non kenn supprimer wu te pourtant ñom ñom ñoo ne nañu ko supprimer ah ñaar la ko fi bàyyi. non ñaar la ko baye non suppression mom nañ nañu. ah déedéet ah wa wa man wa man mais man mais man qui a infiltré mon plateau. Magali et gàmm yi. ak yi. tabaski Tu vois, vous boo régler. réglé. mais mais y mais mais mais image bas bi parce que cette image là vaut cent mille mots. bas non ça c'est très beau et puis ça fait. Euh, les langues des, des, oiseaux de mauvaise augure, représentées par moi, <laughs> <laughs> dont je suis le symbole mais euh, il non non une gens qui ba nu mu rek que parce que c'est important comme lañ euh, c'est un orfèvre en matière de de mise en scène et de et de et de scénario c'est un scénario parfait vraiment nga y a bas ak innocent Nous, nous vraiment de respect de politesse sañ sa ba jekk ñu ko doon saaga ak ñu ko doon xas naa moo deg yooyu parce que léegi comprendre ngeen ne parce que léegi jàng na ah donc il a pris ses marques il a non tamit xale la lépp xale koy def cerveau bi éponge la nee naa te tëpp xoolal boole dara ak ah, ah, ba bare xoolal mais waxoon naa ko fii bas balaa décembre Sénégal kontaan ci parce que balaa décembre ci lay ci lay abouti il sera abouti incha allah balaa décembre waaye gis ngeen xoolal Sénégal yi xamul Bass xam fu mu mujjee Sénégalais yi bàyyi leen Moussa mi il va rentrer dans les rangs parce que Sénégalais yi vont adopter Bass Bass xam nga dégg après yoon dañu jox la waat bas leen sëñ bi sañse bii sourire bu classe bi bi bi bi bi bi bi bi sérénité mais xool leen à côté ndeysaan Moussa mi sañse na ba jekk Moussa mi daay def vraiment xam nga ne dafa dégg nag mu sell mi daay def nag jas neen yow foo jas neen nga def. boo boo bëggee dégg dëgg benn daal fenn rek la sañ sa bopp. fan la sañ sa bopp daal yi. déedéet fenn rek la sañ sa bopp. fu mu sa bopp ba mu demee sa dafa daa. Ah. non dafa xalangu. non d'après toi. non déjà sol yëfu yëfu sénégalais. merci. Ah. merci beaucoup. sol mais lu kenn xamul lu mu sol lan la. Ah, kenn xamul lu mu def noonu. attends non monsieur Loum buy daanu day xalangu. moom moom il est buy daanu day xalangu déglul waxal. déglul li mu sol noonu keroog pourquoi nga ne boobu Burkina moo ko moom. si mais mais non non déedéet du loolu ah, attention attention attention ci wàllu pàncisi am na yoo xam ni. c'est le eh, loolu pàncisi de. ay pa ay pàcc woo ko oh, oh. rek yow tamit. waaw ah, ñëw waaw ah, doo déglu. maa ah, man man am naa tissu boo xam ne suñu ci village bu ma ko solee. Hmm. ah hmm. da yaakaar ni Burkina la keneen yaakaar ni Mali. waaye du du du bii parce que mooy yi am nañ am nañ pàñ ci si. xam nga bii bii mu sol nii njaago yi dawal nànk rek. manjaak am nañ pàñ ci si. waaw yi am nañ pàñ ci si. waaw yi. mooy sa rabal am nañ waay dafa mooy sa rabal. waaw non niñ koy sole soo demee Burkina da ngay gis ni colka bii la. mais Sénégal dafa am dañu am seen manière bu ñuy solo c'est vrai ça c'est africain ça c'est africain mais dafa am suñu yére bopp ñun dafa am suñu yére moo tey moo tey moo tey moo xew. moo tey moo xew mais la nga war ma moo xew. moo tey moo tey bu kenn fàtte ne bu xew mi neex neex bu ñu fàtte ne man maa ko fi créé <laughs> man maa moo maa tey maa tey maa ko moom. léegi kon ñu avancé parce que a tudd yow. non non euh, yaa créé mouvement génnaat ci ah man génn naa ci. léegi. léegi ah, créé mouvement génn si dafa aay Donc, laisse-moi introduire cette émission. Donc, j'ai fait de la promotion, sans fait Orange, Orange, n'a pas vendredi prochain, le serveur est effectif. Le commandant, me dégâte. Euh, donc, je, je fais aussi le point sur mes affaires judiciaires. Ah, ok.